auditeurs yu Rewmi FM mais aussi euh, les internautes ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre via suñu chaîne YouTube Rewmi TV officielle mais aussi di nuyu les téléspectateurs de Rewmi TV ci seen émission sociale toute la ville en parle ngeen koy am euh, samedi bu jot dix heures jàpp onze di ci ànd ak Ndeye Comba Moreau ñuy waxtaane lépp lu soxal actualité bi jëm ci wàllum politique ak sociale ak li nga xamante ne rek euh, mooy xew ci réew mi tey jii nag seen émission sociale euh, toute la ville en parle dalal Assane Dione Assane Dione moom activiste la euh, bokk ci mouvement bi ñuy daal di dippee Africa First nekk chargé de l'école du mouvement Africa First ñu fas yéene waxtaanee ak suñu invité bi lépp lu soxal actualité bi ngeen gis ni fan yi nag actualité bi euh, dara occupé ko lu dul mi fit fitna ak manifestation yi nga xam ne mi ngi am euh, depuis ñu daal di euh, condamné kile di Ousmane Sonko ci wàllum corruption de jeunesse euh, ci procès bi doon am ci diggante mag Adji Sarr mi ko doon tuumaal viol ak menace de mort depuis nag ñu prononcé verdict boobu lee gis ngeen ni réew mi fépp daal di jaxasoo manifestation yi bari na dégâts matériels yi bari na nit yu baree bari ñi ngi siy faatu ñu ngi wax une dizaine de personnes wala sax peut-être ëpp na ko ay blessé donc Sénégal di traverser euh, des moments très durs des moments très durs euh, politique nag moo ko daal di jur mais yamul si wàllum politique bi parce que dafa nekk euh, des répercussions des conséquences sociale boo xamante ni fi ñu toll ni bépp sénégalais bu nekk si réew meeg bitim réew yaa ngi koy métitlu sa xol neexul kon nag ñu fas yéene waxtaanee mbir mi ak waa Africa First Assane Dione maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. waaw Ndeye Comba ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la remercier aussi ci invitation bi di mm. nuyu euh, téléspectateur ak auditeur mi FM yëpp. voilà mi ngi noonu Assane dinaa la laaj un peu rek si seen mouvement Africa First bi euh, bala ñuy dugg si xolu waxtaan bi euh, Africa First moom lan moo ko tax a jóg exactement. waaw Africa First dafa nekk mouvement boo xamante ne si li ko tax a mm. jóg mooy taxawu askan wi. Mm-hmm. mais dafa nekk mouvement boo xamante si aussi dafa ancré dans le panafricanisme. Mm-hmm. xamante mag yi nga xam ne dañ fee nekkoon di jëmal Afrique ci kanam di taxaw der bu ñuul fu ñu mën di nekk ci àdduna bi ñu inspiré wu ci ñoom pour mën a amal njëriñ suñu askan parce que doomu aadama bi sa vécu maanaam booy dund à chaque fois rek war ngay laaj di poser wu sa bopp question ban njëriñ laa amal sama askan ban taxawaay laa am pour sama askan mhm. mais aussi participer ci éveil de conscience parce que nit ki pour nga mën a amal njëriñ sa askan faaw nga xam d'abord yow yaay kan faaw nga mhm. xam d'abord fan nga jógee ak lan moo la war mhm. donc ci loolu yëpp ak combat bépp combat démocratique boo xamante si tey ñu ngi koy mëne ici au Sénégal ñun duñ ci des gannaaw donc bépp mouvement bépp mouvement boo xam ne mu askan wi. est-ce que mën nañ leen a comparer ak. Euh, Euh, frappe euh, bu euh, bu Guy Marius Sagna ah effectivement frappe mën nañu comparer Africa First mm-hmm. comme benn genre frappe bu ñu benn benn mm-hmm. frappe la parce que comme genre boobu la parce que ñun ñoo bokk combat bi mm-hmm. d'ailleurs activité yu bëri suñ koy def ñun ñoo dañ koy bokk quoi ah, frappe yéen ngeen dem bokk frappe rek benn yoon non c'est la même chose xam nga tey mouvement yi mën na bëri mais idéologie bi benn la cest dire que mouvement bu ne mën na mën na mën na nekk bii côté mu ngi mel ni comme parti politique yi rek donc dans l'histoire de l'humanité à chaque nañ bëri mën nañ bëri du problème bi problème bi mm-hmm. mooy à chaque fois rek nañu nañu nañuy def le tout pour se réunir autour de l' mm-hmm. mooy heure bu essentiel jotee rek nañ booloo ñun ñëpp di ko defandoo di xëccandoo di dóorandoo te ñun ñun tamit loolu la ñuy def au niveau avec avec FRAPP parce que euh, euh, plateforme yi ñuy bokk yëpp ñun dañu fay dajeek ñoom mm-hmm. donc euh, idi suñoo bokk combat bi voilà tey ji dama gis yéen waa Afrikafos da ngeen xaw a jege trop parti bi di di Pastef lan nga may mën a expliquer si loolu alors que yéen ay activiste ngeen da ngeen war a neutre en fait dañu mm-hmm. dañuy séentu yéen ngeen nekk ay mm-hmm. nit yoo xam ne combat bi ngeen di mëne da ngeen di neutre nekk si digg bi du ngeen ànd ak euh, képp ku faree si nguur gi mm-hmm. mais aussi du ngeen mm-hmm. ànd ak mm-hmm. képp ku fare ci kujjeeg politique bi mais j'ai vu que y a une certaine proximité avec Africa First et Pastef non Africa First en tant que mouvement jegewul Pastef en tant que mouvement ci boppam en tant que mouvement ci boppam bu ñu koy wax Africa First nekkul benn benn benn mouvement boo xam ne dafa ñëw ancré wala ñëw taxaw ci Pastef mais nag mois de mars bii passé événement mars 2021 ñun am nañ ci taxawaay bu bu bu bu rafet boo xam ne dénoncé nañ li fi am parce que man dama gëm ne neutralité face à l'injustice nekkatul neutralité mais complicité la. parce que tey dafa am benn kamb boo xam ne dañ fa bëgg a dugal euh, société civile wala wala wala activiste man gëw loolu mooy que sooy gis injustice. quelque boor bu mu nekk da war a tëj sa làmmiñ di noppi ne parce que man je suis neutre Africa First nag en tant que mouvement bokkul ci benn parti politique mais ñun les membres. Mm-hmm. chaque membre dañ la may liberté nga militer fu la neex am nañ membre yoo xam ne peut-être ñu ngi ci parti au pouvoir. Mm-hmm. peut ngi ci yeneen parti mais am na ci ñoo xamante ni si tey comme man mii toog fi di wax yow tey je suis euh, je soutiens euh, je suis mm. euh, la la candidature de Ousmane pour pour pour diverses mm. parce que nit ki bu fekkente ne da nekk panafricanisme ngay xeex bu fekkente ne da nga bëgg ñu delloowaat alalu askan wi ci askan wi nga gis ku ñëw révolution nga gis mm. ku ñëw porter le même discours mm-hmm. même discours boo xamante si booy déglu discours bi da ci gis comment dire Thomas li may intéressé mooy li muy incarné ak projet société bi mu teg su falu woon huit heures neuf heures mu ne génn naa ci projet bi ma taxawaat ak moom jàkkaarloo ak moom même énergie bi ma am bi ma jàkkaarloo ak Macky Sall xeexee ko ko. parce que ñun li ñu intéressé mooy ñu indi ñu benn projet de société. Mm. boo xamante ne si askan wi dinañ ci gis seen bopp mais au delà de projet de société boobu noonu ñu am benn idéologie panafricaniste boo xamante si comme ñoom Mamadou Dia ñi fi nekkoon amoon nañ ko gis ni ko Senghor def. Mm. en Afrique quand on prend l' de Thomas Sankara de Patrice Emery Lumumba ils avaient le même discours ils avaient le même combat. kon bu yow bu fekkee ne da ne Ousmane Sonko ak ay Patrice Lumumba di tëkkale Ousmane Sonko ak ay Nelson Mandela di tëkkale Ousmane Sonko ak Thomas Sankara lan moo waral loolu. non li ko waral mooy d'abord le discours xam nga Ousmane Sonko bi mu ñëwee dafa am discours bu mu jaay Sénégal. mooy ban discours mooy discours de vérité d'abord. mooy c'est-à-dire ñëwul di ñu jaay tubaab yu neex ñëwul di ñu won ne moo fi gën a jàng xam nga tey nos hommes politiques bu njëkk bu ñu ñëwoon di wax askan wi. dangay ñëw sol sa costume bu rafet takk sa karabaat ñëw di neexal ay français pour que sénégalais am benn complexe bu ñu am ci yow mais kii dafa ñëw wàcc boppam bu tolloog askan wi buy wax cest dire moo tax yenn langage sax bu koy utiliser nit ñi duñu comprendre parce que dafa wàcc bu tolloog askan wi moo tax moom mm. li muy wax c'est un langage de vérité buy wax ak nit ñi du leen neexal mm-hmm. xam nga tey jafe na nga gis homme politique buy wax ak militant ne ko man du ma la jox cent ma la jox dërëm da ngeen di ñëw ñu bokk projet liggéey jafe na dans l'histoire politique du Sénégal nga gis un homme boo xamante ni si tey sa campagne sénégalais yi ñoo yëkkati xaalis di ko jox. Mm. homme politique boo xam ne même Lacoste bi nga xamante ne si tey yow effigie bu bu parti bi am yow da nga koy jënd. loolu dans l'histoire politique du Sénégal man mosuma gis parti politique boo xamante ne si tey. Mm. militant bi lépp lu mu soxla ci parti bi moom moo koy jënd militant bi chaque mois day cotiser. Mm. ak lan encore c'est bien organisé. mais aussi mosuma gis tamit. ci maanaam yéen. Sonko joxu leen xaalis pour ngeen ànd ak moom. wala Sonko joxul xaalis ñi ànd ak moom. effectivement mais plutôt ñi ànd ak moom. ñooy cotiser di ko jox xam nga tey boo xoolee Ousmane Sonko. Mm. cest à tey foofu sax la euh, le président Macky Sall defee erreur boo xamante si moo ñu indi ci lii yëpp. Mm. il n'a pas cherché à étudier le phénomène Ousmane Sonko. parce que tey bu fekkente nit dafa ñëw askan di jël xaalis di ko jox lakos man damay taxaw foo xamante si tey bu Pastef xewlee. dafa am ñoo xam ne dañuy ñëw sur le champ indi lakos 5000 francs jëm kaw la ko nit ñi di jëndee. di ko sol. Mhm. xam nga ki Pastef ku fa solob lakos yaa ko jënd. Mhm. mais dans les autres partis politiques dañuy jël t yi di ko may. Pastef fulaar sax. bracelet bi gën a ndaw sax duñ la ko may yow yaay dem jëndal ko sa bopp cest à que loolu tey wane nit ñi dañoo gëm projet bi mu nekk mais aussi gisoo fi benn parti politique boo xam ne day ñëw di wax mhm. a Sénégal amul base militaire en France pourquoi France am fi base militaire pourquoi ñu utiliser ñu continuer di utiliser le franc CFA nekk xaalisu France. Hmm. pourquoi ñu continuer di utiliser beaucoup de choses wala entreprise français yi ñëw gën a am doole ñu gën leen jox respect que les entreprises locaux. loolu yëpp boo gisee homme politique bu koy wax de l'autre côté gisoo beneen homme politique bu ñemee toucher ces questions sensibles hmm. parce que quand tu touches ces questions là tu deviens un que tey lobby yi duñ la duñ yow mais si tu as le peuple waroo ragal boobu am. peuple sénégalais bi dañ ko jël dugal ko ci seen xol parce que lii de am nii tey ñaata homme politique lañ fi condamné tëj leen kaso te mujjul fenn déggoo yëngu déggoo bal takk. Hmm. maintenant lan moo tax tey Ousmane Sonko malgré calomnie mal malgré fi ñu ko dëkkal malgré li ñu ko xas yëpp lan moo tax chaque fois sénégalais di ko gën di bëgg. Hmm. loolu tànk tey njiitu réew mi fi nekk étudier wul loolu noonu ba xam les vraies euh, questions vraies réponses hmm. problème bi ñu nekk nii duñ ci mës a jóg. parce que ñoom dañu jàpp na rek quelques jeunes ñoo topp ci gannaawam di toj di taal alors que c'est au-delà de ces jeunes là. mais ba ba projet Pastef loolu tamit dafa dafa jaaxal ñu bëri. Mm. parce que projet bi projet bi projet bi mm. projet bi. Mm. en tout cas <laughs> dafay tax ñu bëri di laaj. Mm-hmm. mais c'est c'est quoi ce projet de Pastef. mais projet bi Ousmane wax na ko fépp bind na ko ci livre wax na ko. dans tous les plateaux projet bi mooy. projet bi mooy d'abord axe bu oo jël mooy d'abord nañu jiital euh, intégrité ci li ñuy def mooy njub ak jubal. mais aussi jiital dëgg ci lépp lu ñu mën di def mooy lépp loo mën di jël pàcc boo mën di jël moo xam muy éducation moo xam muy santé moo xam muy agriculture nañ ko def ni ko war a defee mais nañ ko jox des hommes compétents Ousmane Sonko da ngay toog mu ne la ànd ak man cest à képp koo jàpp boo ànd ak man ëllëg dangay day tax nga ñëw jël poste bi wala nga ñëw lekk li yaa ngi nax sa bopp ku amul compétence bi duñ la ko jox pourquoi pas tey Sénégal ñuy jël des postes stratégiques di ko jox ay nit parce que tout simplement tu es l'ami du président wala tout simplement tu es l'ami de la première dame mhm. parce que tout simplement tu es un militant man gëwuma loolu man dama gëm ne tey nit ki bu ngeen di ànd bul ànd ak moom parce que tey gis nga euh, Ndeye Kumba ku ne ci ñun tey da nga war a jiital benn affaire d'abord bu mhm. fekkente ne bëgg nañ defar Sénégal booy nga gëm nekk man liy dugg ci man ak liy ñëw ci man maa koy liggéeyal sama bopp gis nga bu ñu gëmee loolu defar réew mi day yomb mais bu fekkente ngay topp un homme politique pour bu faloo mhm. ngeen paccoo réew mi mais Sénégal du mos a baax te loolu fi am depuis 1960 ku ñëw da ngay alimenter say militants nga jël opposition bi nga beddi leen alors que yow boo demee ba nekk président de la république waroo sax di xalaat naan yow da ngay da nekk sax chef de parti te loolu yëpp Ousmane Sonko wax na ci donc projet Pastef mooy c'est un projet. panafricaniste un projet révolutionnaire boo xamante ni si tey visant à changer le Sénégal de façon définitive mais aussi de façon radicale mooy yëpp yàqu-yàqu yi fi am corruption bi fi am. lépp hmm. ñu génne ko tege ko nee. lépp lu ñuy def ñu jiital ci dëgg lépp lu ñuy def mu am transparence mais lépp lu ñuy def alalu askan wi di delluwaat ci askan wi parce que askan wi mënul di cotiser di fay ay am impôt di def lépp te askan wi du gis boppam ci liggéey bi askan wi bu feebaree bu demee ci hôpital yi du mën a faju loolu yëpp. ay ay ay loolu lépp si ay hmm. bokk na ci suñu projet. suñu projet suñu projet la parce que Ousmane moomul projet bi. non projet bi la Assane yéen yow Africa sa bopp si projet bi dama ci gis sama bopp si man ci bokk man ci laa bokk ah, bokk Pastef nga bokk waaw la dama ne Africa First en tant que mouvement mhm. bokkul Pastef mais dañ ne chaque membre tu as droit nga militer ci parti bu la. non léegi leer na comme que yow Pastef nga bokk rek. voilà effectivement waaw effectivement parce que mm. c'est dañ ne dama ne la. Mm. Mm. Africa First y a des yu bokk Benno Bokk Yaakaar. parce que dañ ne mouvement en tant que Africa First. c'est un mouvement apolitique. mais membre bu ne am nga droit boo toogee nga analyser am nga droit nga dem bokk fu la neex man nag bi ma toogee sama akulaay taala ma analyser. xool gi situation réew mi. par rapport ak sama gëm-gëm ci panafricanisme. Mm-hmm. par parce que man avant may xam Ousmane Sonko dafa am ay nit ñoo xam ne dama leen doon suivre man j'ai j'ai jamais été intéressé par la politique. Mm. niñ au Sénégal parce que ni ñu koy defee comme beaucoup de jeunes. ay nit approché nañ ma fu ne je me suis j'ai dit ma du ma def du ànd ak ñoom te bu fekkonte ne gisuma Ousmane Sonko teg projet bi mm. du ma mos a ànd ak moom parce que li ma intéressé ci projet bi rek mooy esprit révolutionnaire esprit panafricaniste bi. Mm-hmm. ak bi ak suñu diggante ak tubaab yi muy tudd ak taxawaay bi bi nga xamante ni si tey bëgg na ko am bu jiitee réew mi gis nga bu loolu amu doon mhm. mën naa toog Sénégal ba jóge fi du ma def politique te moom bu faloo tamit génn ci loolu huit heures laa la wax huit cinq mu génn ci projet euh, panafricaniste bii nii dootuma gis dootuma dégg parce que man loolu kese mhm. moo ma intéressé leneen intéressé wu mu ci moom Euh, Assane fi ñu toll nii euh, Sénégal di traverser des moment très durs en tout cas ñu ngi profité ci occasion bi di mm-hmm. massawu sénégalais yëpp parce que je pense que ñi nekk si biir réew meek ñi nekk bitim réew seen xol neexul mm-hmm. ñëpp ñi nga xam ni sax bëgg nañ Sénégal te du duñu ay sénégalais euh, liy xew si réew mi neexu leen donc ñu ngi profité ci occasion bi di massawu sénégalais yi di jaale ñi nga xam ni jot nañ si ñàkk seen bakkan ñu ngi jaale seen mm-hmm. famille bu baax di leen massawu en tout cas ak nu mënti demee dañuy ñaan jàmm dellu si waat déjà Assane euh, naka nga gisee situation bi nga xam ni actuellement mi ngi am mi ngi jógee en mm. tout cas artu nañ situation mm-hmm. amoon na fi mm-hmm. événement mm-hmm. mars 2021 bi nga xam ne ñu ngi bëggoon tey Ousmane Sonko depuis ñu soulever dossier euh, suite Beauté doon ko tudd ci wàllum viol ak menace de mort gis nga li amoon si réew mi 14 mm. morts amoon mm. euh, ba finalement nguur gi reculer euh, defaraat bañ foog ni bàyyi na gis nga ni mu continuer am na fi procès diffamation bañ condamné ko six mois avec sursis ñu ne sax Ousmane Sonko est écarté pour 2024 yamul foofu encore continuer dossier yi nga xam ne amoon na ko dossier bi si gën a sensible nag wala dossier bu mel nii je pense que mi ngi mës a am Sénégal euh, euh, c'est vrai que samay at bariwul mais je pense que dossier bu mel nii si ah, wàllum viol euh, mësul am Sénégal mu nekk dossier boo xam ni pratiquement dafa créer ay conséquences yu bëree bëri ay dommages nga gis nekk depuis ñu condamné ko si wàllum corruption de jeunesse ça pose problème deux ans deux ans yi nag bu ñu dégloo Abdinar Ndiaye maître Abdinar Ndiaye li mu wax leer na. Mm. Euh, képp ku leen wax ni ak condamnation Ousmane Sonko mën na bokk deux mille vingt quatre mënul bokk deux mille vingt quatre donc euh, jël nañ décision boo xam ne dañu ko écarter carrément ci course à la présidentielle bu deux mille vingt quatre mm. depuis lors nag. Mm. gis nga ni dëkk bi. yëngatu na. kenn nelawatul ba yandoor kenn lekkatul ba suur euh, dégâts yi bari na nit yaa ngi faatu gendarme yeeg policier yeeg armée bi ñëpp ñu ngi ci mbedd mi euh, je pense que euh, Sénégal nekk ci haute tension des moments de chaos ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bi ma ci am mooy d'abord comme ni nga ko waxee di ma masawu ñëpp. Mhm. ñi ci génn àdduna parce que en 48 heures déjà en compte 13 morts. Oui. loolu c'est énorme waxagoo waxaguñ ci 14 morts yi amoon mars 2021. exactement donc nga gis ne dossier bi gis nga li muy indil ci ay ndaw yu ñàkk seen bakkan. Mhm. donc plus de déjà presque plus de 20 morts. Mhm. donc loolu c'est énorme mhm. donc di ñaan yàlla rek xaare leen aljan yi gën a kawe. mais ndey kumba lii dafa nekk loo xam ne bettul kenn. di bettul kenn parce que mars 2021 il n'y avait pas un dialogue sincère cest dire am na ay nit ñu dox jéego pour jàmm ñëwaat Sénégal mais du côté des deux camps il y avait pas quelque chose ça dañoo maslaa xam nga Sénégal maslaa moo ñuy sonal da ngay taf yëngal. Mhm. après buy buy buy dajee ko sax doo ko yëg. Mhm. parce que problème day am au lieu que ñu teg problème bi maanaam li olof yi daan teg baaraam bi. ci mhm. góom bi mais ñu koy raay di ko wër. effectivement xam nga góom da nga koy xolli nga faj ko mais doo ñëw di raay di ko wër du mës a wër loolu nag moo ñu jàpp ba tey jii nii tey parce que tey comme li ma la waxoon sànq. Ousmane Sonko de c'est un phénomène gis nga Ousmane Sonko li mu def. li mu am nii tey c'est pas du du lu mu liggéey. yàlla day tollu foo xaman si jamono day jël benn nit mu am lu mu ko jox tey muy président Macky Sall muy nit ñi gëm Ousmane Sonko ànd ak moom amul kenn ku mën a dugal ci seen bopp leneen lu dul Ousmane Sonko. Mhm. léegi bu loolu amee yow nga nekk un président de la république mais étudier sa sa phénomène mais nga am entourage boo xam ne dañ la gëmloo ne kii mën nga ko jàpp mën nga ko jàpp te dara du xew mais depuis 2021 presque deux ans dañoo gëmloo ne ko Ousmane Sonko dafa siif benn ndaw ak ñaari arme mhm. ñi nga xam ne dañoo far ci Macky bokk ci la mouvance présidentielle mm-hmm. wër plateau télé yépp di gëmloo nit ñi ne Ousmane Sonko est un violeur mm-hmm. fu ne ñu wax ko fa yàq deram traîner ko dans la boue ñu dem di dem ba ay preuve yu bëri génn fi ay audio entre autres ñu ne déedéet dara amul ñu dem ba justice am malgré ni liñ ko xañ euh, ak ak yelleefam yépp ñu xool xool gauche xool droite fépp fu ñu xool mënuñ gis benn preuve palpable pouvant prouver pouvant attester ce viol ñu langaamu ci corruption de jeunesse bàyyi viol bi ki porte plainte ba muy porte plainte viol la la porte plainte mais procureur ci boppam moom moo wax ci loolu noonu pour ñu toppee ko la parce que xam na ne xam moom même ci ci bi muy def réquisitoire bi moom moo ko ci boole. Mm-hmm. parce que xamoon na ne mënuñ ko topp ci viol parce que preuve amul. parce que mm-hmm. nit ki mënoo ko topp ci viol te preuve amul. mais nañu xool la jurisprudence Khaliphone euh, Sall. Hmm. wala Sitor Ndour. Euh, Sitor Ndour ñooñu lan moo leen koo xam ne demoon nañ ba jàppale tëj la mais lan moo leen seetal ay certificat médical. Hmm. mais certificat médical Ousmane Sonko bi lan moo tax ñu jël ko rangé ko xam nga tey injustice injustice moo baaxul ci réew te yàlla xam na ne fu dëgg amul justice amu fa jàmm du fa cest à que mën nañ toog fi nag naan Sénégal dëkku jàmm la nañ leen jàmmoo nañ leen woote jàmm. Hmm. mais boo dëkkoon ci sa kër. nit jàkkaarloog yow chaque jour mu ñëw fëgg sa néeg sotti fa ndox wala chaque jour mu ñëw bëgg taal sa néeg mhm. yàlla xam na ne doo bu nit ñi wootee jàmm toog waxtaan suba mu ñëwaat def ko tamit da ngay jàkkaarloowaat ak moom parce que nit ñi dañoo sonn ci injustice bi am Sénégal mooy ku fare fële lu la neex def lu la neex wax bu la neexee saaga bu la neexee jël as alalul réew mi doo ne 12 ans yi fi nekk yépp doo ma ne ku bokk ci Macky Sall jub mhm. mais 12 ans yi fi nekk bokk ci président Macky Sall taxaw fii def ay délits

waxuma la nga nekk jullit wala nga bokk ci beneen gëm-gëm mais képp ku gëm yàlla waroo nangu ñuy noot wala di teg nit loo xamante ne si du yoon. Mm. mais yàq kenn du ko encouragé. waaw mais façon yàq bi a patriotisme. te je pense que patriotisme déjà au vrai sens du terme mooy ku bëgg réew. Mm-hmm. koo xam ne il est prêt à se sacrifier pour son pays pour sa patrie. Ah, ah ba si acte si citoyen sax romb sax ah, mhm. mbalit muy taxawaalu nga dajale mbalit dugal si pool wala nga lakk ko defar je pense ko loolu si patriotisme la bokk est-ce que kon tey jii euh, bu ngeen fekkee da ngeen a mer c'est vrai que dañu dañu bëgg a éliminer seen mhm. candidat mhm. ngeen mer est-ce que mer boobu jar na ngeen di taal ngeen di lakk ngeen di toj au Auchan yi ngeen di euh, toj magasin jàmbur yi banque yi est-ce que jar na ko en fait xam nga yow yaa ma wax discours bi mu tenir ak Pastef lu mu woote donc tey jii bu ngeen jëfee loolu est-ce que wutewul ak li nga xam ne mooy projet Pastef xam nga tey dama ne la tey waaw kenn ci ñun mënul mënul mënul encourager yàq yi am saccage yi am kenn mënu ko euh, ak vandaliser yi ñuy vandaliser bagage yu jàmbur yi hmm. loolu amul kenn ku bokk Pastef wala ku bokk feneen koo xamante ni si sañ nga taxaw sénégalais yi di la xool nga ne lii maa ngi koy encourager hmm. déedéet parce que loolu kenn mënu ko rafetlu kenn mënu lu yàq bi kenn rafet lu taal bi mais xam nga tey lépp loo gis rek dafa am fu mu jóge sa dire lan hmm. moo ñu indi ci situation bi est nit ñi dañoo xëy rek taal kenn mënul justifier taal hmm. mais est-ce que nit ñi dañoo xëy rek jóg di taal hmm. est-ce que nit ñi dañoo xëy rek jóg di yàq te tey dans une manifestation y a des gens qui s'en qui qui ba tey lamb bu amee jeex mais nit ñi dañuy agressé nit ñi dañuy toj ay magasin jaamur te lamb la c'est pas de la politique mais lépp lu am manifestation bu am day am ay nit ñoo xamante ni si tey dañ ciy profito di yàq ak di def loo xam ne def la wuñu leen ko mais tey bu ñuy wax patriotisme tey tey mm-hmm. Pastef bu amee manifestation ñun suñu manifestation bu ñu am man yi ma dem yëpp bu paree mais place bi ñoom ñoo koy nettoyé lépp lu fa nekk ci mbuus ñoom ñoo koy nettoyé donc ñoom yàgg nañuy def ay acte ay acte citoyen boo demee ci yeneen yeneen département yi ñu ngi organiser ay set setal ñu ngi organiser ay vacances agricoles ak yeneen yoo xamante si tey pour accompagner askan wi la mm-hmm. am solo mooy lan moo ñu indi ci situation bi nii tey bu fekkoon ne tey injustice amul nit nag da ngay toll foo xam ne ñun ñëpp ay doomu aadama lañ dañuy toll foo xam ne tey situation bi daf ñuy dépassé mm. mais je me dis que lii yëpp day dégénéré te kenn du ko ñaan parce que day dem ba tollu foo xam ne manifestation bu demee ba tollu foo xamante si tey nit ñi ki ñu amoon yaakaar jox ko seen lépp nga ñëw bu koo faagagal ci lu dul dëgg xam nga tey bu fekkoonte ne ñoom dañoo prouver mm. ne que Ousmane Sonko dafa violé mm. ñu indi des preuves palpables certificat médical bi wax bu boobaa bu leen neexee sax ñu jàpp nit ñi ñëpp tëj ci kaso bi kenn du wax parce boo ñëwee di défendre lan ngay défendre mais mënoo jël nit nga teg ko loo xam ne du yoon nga am nañ droit défendre seen leader parce que xam nañ ne Ousmane Sonko bu ñu ko seetaanee fi Macky Sall jaarale ñoom Khalifa Sall jaarale ko feneen feneen mais fa lay jaar te tey boo xool ñoom bu fekkee yàq ngeen réew mi yëpp Sonko ñëw jiite réew mi mbaa situation bi mu fiy fekk du métti si moom non réew mi moom déjà comme ni nga ko waxee xam nga tey parce que gis nañ région yi dëkk yi nga xam dafa am Euh, am instabilité gis nga dëkk yooyu la fa am. Assane duma la ko jàngal effectivement man comme dama ne comme le dama ne tey jii bëgg gi ngeen bëgg Sonko. Hmm. Euh, tey jii bu fekkee dañu dañu yàq réew mi yëpp. Hmm. si jamais 2024 sax sénégalais yi tabb Sonko bokk ñu tabb ko est ce que hmm. moom kon tey euh, dina fi fekk situation boo xam ne dina mën a doxal réew mi comme ni nga ko bëggee ak li ngeen di séentu si moom. waaw effectivement parce xam nga comme li may wax rek gis nga nit. xam nga mënoo bëgg a defar réew bu pare bëgg kaa yàq. Ousmane Sonko mënul wax Sénégal ne dama bëgg a defar Sénégal. ba moom ci boppam mu yàq Sénégal. mais tey dama ne injustice bi ñu koy teg moo indi lii yëpp. moo indi lii yëpp source tey dañu situer les responsabilités. Mhm. c'est-à-dire que si parce que dañ ne la justice est rendue au nom du peuple mais li ñu gëm mooy que Ousmane Sonko violé wut. Mhm. justice lu mu wax mooy Ousmane Sonko violé wut deful menace de mort. mais mënoo jël beneen affaire tamit nga teg ko ci moom pour éliminer ko candidature te muy porter l'espoir l'espoir de beaucoup de sénégalais. Mm. espoir boobu noonu nga bëgg ko tas mu ngi mel ni nit rek nga ñëw bëgg ko tasal yaakaaram. bu boobaa nag nit ki dalay woon moom ni mu fi fi mu mëne mais kenn mënu encourager yàq parce que comme ni nga ko waxee Sénégal bu yàqoo. Mm. Ousmane Sonko bu ñëwee tamit dina am. problème pour jiite réew mi mm. mais tey dama ne kan moo ñu indi ci situation bii nii kan moo ñu indi ci situation bi et c'est pas la le président Macky Sall li muy def Ousmane Sonko bu ko ko Abdoulaye Wade defoon du nekk sax président de la république parce que je pense que benn yoon lañ ko convoqué gis nañ ni mu demee keroog boobu la ko Abdoulaye Wade bàyyi muy dem caravane dem fu ko neex xam nga injustice bi am ci moo grave parce que tey boo fekkee ne Ousmane Sonko dañ ko terawoon caravane mm. dem ne coppet jël ko Koungheul indi ko mais pendant ce temps Abdoulaye Seydou Sow mu ngi biir démb on a entendu le ministre de la jeunesse toog devant les caméras dans une télé de la place mu ne Macky Sall dina dinañ ko ñaan njëkk pour mu bàyyi le journaliste Serigne Saliou Gueye. Mm-hmm. kon Macky moo ko jàpp. Mm-hmm. loolu du samay wax waxu un ministre de la république la. Mm-hmm. nga taxaw nga ne yow di nga wax pour ñu bàyyi telle personne Macky Sall bàyyi telle personne kon mag kon kooku. avoué na sans le dire. que Macky mooy jàpp nit ñi mooy jàpp ku ko neex. mooy jàpp mooy tëj parce que indépendance justice voilà indépendance gis nga on doit avoir yoo xam ne. bu ñu joxee verdict duñu xool kii fu mu far ak fu mu farul dañ koy joxe ci seen aqulaayu taala léegi Assane euh, John ñu wax ba léegi si manifestation yi parce que gis nga ni njiitu réew bi mu wootee dialogue sax ci biir ci biir discours am am na fu muy évoquer nit yi ñu faat ci manifestation yi quatorze morts yeeg depuis lors y'a y'a beaucoup de morts te gis nga ci quarante-huit heures euh, manifestation yi aussi on a dénombré dix wala treize morts comme ni nga ko waxee sànq moom mais na jàpp na ñiy faat du les forces de défense et de sécurité fii Sénégal dafa am ay infiltrés ñoo xam dañuy ñëw Euh, di faat euh, su ko defee ñu mën ko taqal état wu Sénégal mën leen a yóbbu yóbbu ces pays ainsi de suite en tout cas explication <coughs> boobu la joxe nee na sax ñoom ubbi nañ ay enquête mm. pour xam réellement ñiy faat ñan la te déjà si mm-hmm. premier élément yu ñu am mm-hmm. xam nañ ni du force de défense et de sécurité euh, yu Sénégal ñooy faat mais ay intrus ñoo xam dañ leen yebal pour ñu taqal mm-hmm. état wu Sénégal lool lan nga siy tontu. loolu li may tontu mooy c'est un discours dangereux un discours dangereux mais mm. un discours qui fait bu fekkente ne Sénégal tollu nañ foo xam ne ay nit mën nañ fi ñëw yor fi arme di rey ay sénégalais ci manifestation depuis mars 2021 lañ waxoon loolu boo fàttali ko. Hmm. depuis mars 2021 lañ fi waxoon ne dafa am hmm. des forces occultes. Hmm. ministre de l'intérieur wax ko. ñu wax fi lu leen neex mais ba tey mënuñu indi lu preuve bu palpable. mais loolu c'est dangereux. parce que tey bu fekkente ne démb euh, président confirmé ko. mais président li muy wax noonu. loolu du waxam. parce que tey dama ne Sénégal réew la. boo xamante ni si tey bu ñu demee. ba en deux mille vingt trois ñu mën fi jàpp ay nit di leen rey te kenn mënu ko mënu mënuñ indi euh, preuve mais loolu yow war nga tiit man war naa tiit ñoom nañ ñu wax nit ñooñu. fan la ñu ngi def enquête. <coughs> non enquête. Mm-hmm. enquête depuis deux mille vingt un quatorze mars deux mille vingt un amul benn enquête indépendante ba tey jii dañu promettre nekk. deux mille vingt et un ñi ci faatu danañ def benn enquête indépendant ñu élucider ñi leen rey. Mm-hmm. Mm-hmm. mais mars deux mille vingt et gis nañ fi vidéo yoo xamante si ay forces de l'ordre ñooy viser ñooy viser nit ñi di gis manifestant yi di di di génn di di di di di comment dirais-je di wax ne ay force de l'ordre ñoo leen di tirer. mais am na ci vidéo boo xam ne jeune boobu ñu rey woon parcelle. Mm. ñëpp gisuñu ku kuy tiire. Mm. gis vidéo bi muy surculer mais loolu lépp duñ ci nangoo wax tey dafa loo xam ne daw sa responsabilité la. daw sa responsabilité na mooy lu ñëw rek nga ne du man du man cest bu ñuy def nii nii di wër-wër nañ teg problème bi sur la table ñu toog autour d'une table ñu def un dialogue sincère. Hmm. parce que dialogue bi ñu woote fee c'est pas un ah, dialogue ah, sincère ah ah woote na dialogue ah, nag Assane woote na dialogue yéen a demul mais c'est pas un dialogue sincère. woote na dialogue woote waxtaan nekkul nekkul dialogue sincère. ah bon gis nga un dialogue. Hmm. doit être sincère. et surtout responsable. parce que mais loolu lépp si dialogue bi ngeen koy waxee. non xam nga balaa ngay. dem comme que woote na rek. yéen dem seen bopp xam nga man soo ma wooyee. dama xam ne yow tu n'es pas sincère. dama xam ne yow tu ne pas responsable lan laay wuti ci sa woote tey nit su ma woowoon tey ne ma dama la soxla kaay ñu toog waxtaan te mu wóor ma ne ki may fekk li may wax yépp du ko def li ki may fekk li muy wax ak li muy def du benn ki may fekki. li ma gëm ak li mu gëm du benn. Mm-hmm. mais su ma fa demee ñu waxtaan ban importance la am ñaata dialogue ñu fi am au sorti de ces dialogues. que mm-hmm. continuer wuñ di def leneen nag. Mm-hmm. est-ce que di nga tey mën nga dem ci benn père de famille mu am cinq doom nga jël cinq doom dugal kaso ñaar ñi nga gaañ leen ñu ngi hôpital kenn ki ñu ne la décédé na yow nga ne père de famille boobu noonu ñëwal sama kër ñu waxtaan est-ce que kooku dina ñëw ñaata militant Pastef ñoo ne ci ci prison yi ñaata militant Pastef ñoo faatu ñaata militant Pastef lañ gaañ. léegi nga ne homme politique boobu noonu fàtte loolu yëpp sa njaboot gi fàtte leen lépp nga ñëw ñu toog Ousmane Sonko bu defoon loolu mais ñu bari dañ koy bàyyi parce que day doy dem di fekki koo xam ne sax li muy wax gëmu ko yow mën nga tëj nit ki ay njabootam euh, ñi nga rey leen ñi nga def leen lu neex nga topp ko di ko persécuter di barricader këram loo xamante si c'est injuste chaque jour nga dem.

pour marcher vers le palais loolu moom moo ko fi wax moom moo fi wax ne ay juge ak i magistrat wax leen lu leen neex le président Macky Sall amul lu mu waxul 2011 2012 mais est-ce que Abdoulaye Wade mos na dem loolu mooy démocratie c'est-à-dire que dans le quand on est le ku ne mën na wax sa xalaat après ñu mais mënoo yow ngay wax sa xalaat di wax lu la neex te keneen ki du wax mais ñi far ci le président Macky Sall duñ taxaw ñu ne Ousmane Sonko dañ ko war a rey Ousmane Sonko bu ko reyee Sénégal am jàmm dañ ko war a taal dañoo war a taal këram. est-ce que yow mës nga dégg benn yoon ñooñu ñu woo leen c'est-à-dire boobu noonu la Sénégalais yi doyal nga dem ba tey boo jëlee Fadilou Keita. Hmm. mu taxaw mu ne j'espère qu'on n'a pas tué mon ami Didier j'espère point d'interrogation Ahmed Suzanne Camara devant les caméras. Hmm. taxaw ne ko moom xam na militaires yi ni ni affaire yi demee explique ko clairement ne dañ leen rey léegi Ahmed Suzanne Camara boobu noonu tey lan la ëppalee Ousmane Sonko ci Sénégal lan la ëppalee Fadilou Keita ci Sénégal bu ñoom ku far ci ñoom wax lu la neex te ñun sañu ñu wax lu ñu neex. même booy wax sax da nga koy da ngay modéré même tey yow boo boo àndul ak Macky Sall sax boo amee émission sax ñëpp woo la ci àdduna bi yëpp woo la. Mm. bul dem bul dem wala boo demee xamal li ngay wax. xamal li ngay wax kon xam nga ne Sénégal toll na ci moment boo xam ne se très dangereux te ku far ci ñoom booy dem lu la neex nga wax dara du la ci fekk yow mën nga taxaw wax lu la neex tey boo xoolee Ousmane Sonko bi ñu ko jàppee nan lañ def jël ses affaire int yoo xamante ni si tey c'est confidentiel ces documents. Mm. ñu jox ko un faux compte faux bi am exclusivité bi. Ousmane Sonko gendarmerie moo ko jàpp bi mu nekk ci oto gendarmerie kan moo fa nekkoon kan moo ko photo kan moo ko dugal ci réseaux sociaux yi Ousmane Sonko euh, euh, dossier mi mu yoroon noonu. Mm. ak lépp lu ñu fekkoon ci moom kan moo ko dugal ci réseaux sociaux yi exclusivité bi. Mm. si on est arrivé dans un pays où des documents qui sont entre la main de euh, entre les mains de la gendarmerie. ñu koy gis sur la place publique à travers un faux compte qui passe tout son temps est-ce que les Sénégalais doivent continuer à subir cette injustice ñu lay dóor suba ak ngoon nga taxaw naan waa nañ nañ continuer dama dóor rek. nañ continuer mais est tamit nekkuñ loolu peut-être dañ leen see fekk parce que yéen waa Pastef aussi wala taskatu xabaar yi kii dañuy tamit divulguer des des de documents confidentiels si si net bi ainsi de suite. waaw loolu am na ñu dama am na ñu koy def. xam man dama est-ce que nekkoon lu ngeen di kaas aussi seen côté yéen a ngi ñoo def. Mhm. parce que am na ñu koy def. te képp ku ko mën di def aussi man dama ne loo xamante ni si day cest à man mii di wax ak yow su ma divulgué divulgué woon des documents yoo xam ne ils sont entre les mains de la gendarmerie ma def ko exclusivité dañ may jël si parce que du ko am sax opportunité bi. Hmm. mais problème bi ñun question bi ñuy posé mooy kan moo photo kan moo envoyé faux compte bi ak kan moo dugal. mais loolu ba léegi. ak lan moo tax wuñ ko doo mës mais doo mës a am réponse bi. loolu doo mës am réponse bi parce que kooku foo compte boobu noonu day lu ko neex lay dugal lu ko neex lay def ay documents yu ko neex lay dugal mais ñun loolu ébranlé problème bi mooy man li ma gëm mooy injustice baaxul ci réew mooy nit ki boo ko toppee di dóor di ko dóor mu ne la du ma fayu man loolu loolu loolu moom man gëwuma ko moom man li ma gëm moom mooy ku ma dóor hmm. damay fayu même diine sax dana la ku la ku la ku la ku la gaañ ku la hmm. tooñ te mënoo koo baal may nañ la nga fayu lu toll ni la gaañ léegi lan moo tax Assane Dione euh, parce que ñu ngi fàttali auditeurs yu Rewmi FM ak euh, téléspectateurs yi que yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey ji Ndeye Comba dalal Assane Dione bokk ci mouvement Africa First bokk tamit ci parti bi di Pastef euh, tey ji Assane lan moo waral ngeen ne coûte que na njiitu réew mi démissionné dégg nañ sax ñoo xam ñu ngi woote si yenn rajo yi na armée bi jël nguur gi ainsi de suite lan moo tax coûte que coûte la démission du président mënoo leen ko bàyyi yeggale mandaam non man je vais ah. pas je vais pas je vais pas euh, insister sur sur sur ça le fekk na armée bi jël nguur gi wala na fekk na président bi démissionné man du ma du ma du ma xuus ci loolu de trop mhm. parce que man je me dis que c'est un précédent dangereux un précédent dangereux dans la mesure où lépp lu ñuy def rek nañ ci ànd ak lecture man sama combat suñu combat man bokk li ma gëm man am na ñeneen ñu gëm leneen parce que xalaat yi dañuy waroo mais man je suis un homme libre mhm. lépp lu may wax damay jël samay responsabilité mhm. di réew mi nañ fi taxawaat justice justice bi. Mhm. nay dox. Mhm. bu bu justice amul nag jàmm mu nu fi am lu ñu mën di wax jàmm mu nu fi am léegi nag bu fekkente ni justice am na ñu ñëpp ñu nekk ci jàmm le président Macky Sall jeexal na ku jeexal kay ak démissionné benn la. liñ koy ñaan mooy troisième mandat bi muy bi mu def ci xelam mi wala ñenn ci ay ñoñam bu ko koo poussé pour mu def ko. Mhm. na ci génn xelam ñi mu àndal génn ci xelam. parce que je pense que quelques mois moo ko fi dese quelques mois nag bu ko fi desee pour man nag quelques mois yooyu mu dem yoonam. après ñun sénégalais ñu choisir ki ñu bëgg mu nekk suñu candidat mais problème bi mooy est-ce xam nga le président Macky problème bi yëpp bu fekkoon ne toppuñu Ousmane Sonko sengale ko di ko dóor suba ngoon duñu fi agsi kon est-ce dégg ñu ne la na président bi démissionné mais si on est arrivé à un niveau où les Sénégalais demandent au président de démissionner c'est parce que dafa bëgg a éliminer un potentiel euh, président. Euh, mais ñu ñu bëri jàpp ne éliminer nañ ko ba pare même bu dul si procès suite bi si affaire Mame Mbaye Niang bi affaire diffamation bi ñu bëri jàpp nañ ni ñoom éliminer nañ ko ba pare mais c'est au peuple sénégalais xam nga hmm. Ousmane Sonko c'est au peuple sénégalais de rétablir la justice la ñoom kese ñoo am ñoo xam nga tey bu ñu demee ba. kon objet tey ji lan moo mën a tax gars yi arrêté. gars yi li mën a tax ñu arrêté. waaw mooy ñu may Ousmane Sonko jàmm Ousmane Sonko nekk candidat en 2024. parce que ñu coow yëpp loolu la. loolooy bi que xam nga ne tey est ce que xam bi en la wax lan moo ko indi c'est-à-dire que dañu nekk dans un pays où c'est le président de la République qui choisit ses adversaires gis nañ ko en xam nga toog nañ fi en 2019 hmm. un premier ministre mu ne candidat yi du weesu 5 candidats yi ñoo nekk cinq. Mm-hmm. ñu fi éliminer ay nit pour parrainage di fi éliminer ay nit pour lu leen neex tey dama gëm ne sénégalais yi Ousmane Sonko bu dee nu mu mën a mel mais sénégalais yi ñoo d'accord mu jiite leen mais bàyyi leen ñu jiite mu mu jiite leen parce que le président Macky Sall lu ne tuumaal lañ ko fi tant Abdoulaye Wade ci tuumaal lañ ko fi les sept sept milliards de Taïwan. mais mm-hmm. est tax na Sénégal yi fàlluñu ko. Mm-hmm. mais Sénégal dañoo fàtte loolu yëpp gëm ci ñoo mais mais mais euh, euh comment dirais président Macky Sall nee lépp lu laal affaire sécurité réew mais stabilité bi moom du ko du ko du ko négocier. Mm. ak aussi troisième mandat bi nangu na si waxtaan naka nga gisee euh, discours yooyu est-ce que yow loolu. convaincre na la que troisième mandat bi dinañ si waxtaan daal troisième mandat bi waaw. arrogance la ci wax. nee na kenn mënu wax force. doo bokk arrogance mooy arrogance parce que tey bu fekkente ne tey da nga yow réew dañu la jiite nga waroon leen jiite yow nga taxaw wax ci plateau télé yépp dem ci sëriñ yépp en 2016 taxaw ne leen dem Touba ñu lay dégg nga dem Tiwaawoon nga ne leen réew mi kat 2012 dafa dund lu métti ay nit faatu ci bëggatuma nit faatu ci wàllu mandat moo tax ma bëgg a def mandat bi ñaar nit taxaw di wax nga ne leen mandat bi ñaar la. mais nga hmm. dem ba à un moment donné yow nga jàkkaarloog les Sénégalais nga ne leen sa troisième mandat boobu. Hmm. dañ lay ñaan njëkk maanaam nit ñi dañ lay ñaan. ci njëkk teraanga pour yow nga mën a maye. ñun hmm. amuñ luñ koy ñaan. parce que mandat bi sax moomu ko même ñaari mandat yi mu def ko. peuple sénégalais ñoo ko moom cest ñoom la définition qu'ils ont du mm, de, mm. de l'état ou bien du pouvoir ou bien des mandats ak définition bi nit ñi war a am ci mandat du benn mandat peuple moo ko yor le peuple est souverain et la souveraineté appartient au peuple c'est au peuple de choisir euh, son président mais peuple bu la choisir mais day kumba kooku defal na la lépp jox na la armée jox na la gendarmerie jox na la euh, jox na la euh, budget jox na la lépp loo bëgg garde corps lépp loo bëgg Macky Sall amul manqué fi mu toll nii tey avion ak lépp la ko sénégalais jox fu mu bëgg a dem moment tey mën na fa dem mais sénégalais yi bu ñu la defalee loolu yëpp yow yaa war a nekk seen jàmm man dama gëm ne kuy jiite réew yow tu dois être l'esclave de ton peuple maanaam ñu bëgg nga ciy daw mais boo taxawee ci peuple naan leen da ngeen may ñaan njëkk mais loolu ça vous montre yow déjà woon nga peuple bi ne man buur laa maa ngi ci kaw man maay buum maay bumi lu ma neex mooy am foofu déjà dalay wan ne dès le départ dialogue bi rek yàqu na dès le parce que booy waxtaan ay di nga leen da ngeen may ñaan njëkk te yow nga leen kaa ñu waxtaan su la table ku ne indi sa xalaat ñu xool li gën ci réew mi kon foofu noonu déjà dara dox sécurité réew mi nag comme nee na ko négocier di ko négocier am sécurité parce que lii di am ni neexu ma neexu la neexu la kenn parce que ñun ñëpp ñoo ci yàqule mm-hmm. tey Sénégal mu ngi mënoo dox fenn mm-hmm. mënoo dem fenn pour nga déplacer wu c'est tout un problème mm-hmm. pour nga connecté wu c' est tout un problème. te mm. ci la nit ñi di liggéey. Mm. actuellement nii tey Sénégal ñaata la ñuy ñàkk. économiquement économie bi. Mm. tourisme bi ñi bëggoon ñëw duñ ñëw. dëru Sénégal yàqu yëpp dans tous les journaux du monde journaux yi gën a mag ci àdduna bi en parle. 13 morts en 48 heures est ce que Sénégal xam na violence yi tey bu ñu demee ba agsi fii tey man je me dis que tey bu ñu am égo te te le président Macky loolu moo koy sonal mooy à fois bu jàppee dana du ma bàyyi mais boo nee du ma bàyyi l' ma bàyyi pour l' intérêt du Sénégal. dañu war toog ñu waxante dëkk tant que un dialogue sincère amul mais mënoo jàpp aussi plus de 500 personnes di def lu la neex pare nga ne ñu toog wax. jóg jalo mais Assane naka gisee aussi armée bi mi ngi si biti de. bi même ñun. fii suñ côté bi nii soo génnee. Mhm. Euh, di nga gis côté Auchan yi. effectivement foofu laa romb léegi gis naa leen. waaw mhm. euh, naka nga gisee déjà. Euh, armée bi laa romb léegi parce que bi may romb léegi nii. Auchan Auchan bii nii Castor bi armée bi moo koy garder. donc si on est arrivé à cette situation c'est parce que l'heure est grave. Mhm. mais beaucoup de gens ne mesurent pas que l'heure est grave. Mhm. bu ñu demee ba armée bi génn. bu ñu mhm. demee ba armée bi di sécuriser certains lieux. Mhm. c'est parce que l'heure est grave. kon dañu war a gëm ne le peuple sénégalais bu ñu jàpp xam nga la man dama jàpp ne même bu dee dix personnes ñoo génn di manifester wu. ils font partie du peuple sénégalais. ànd nañoo ak yow ànduñu ak yow jëlal en compte leur revendication jëlal en compte leur revendication parce que mois de mars nii la woon dañoo commencé le ministre de l'intérieur génn wax. keneen génn wax le président toog croiser les bras. Mm-hmm. dafa dem ba kawoo installé mu door a génn wax mais je pense que waroon na génn bu yàgg dalal xelu Sénégalais yi ñu toog ñu waxtaan ñu teg affaire yi ci yoon bu boobaa duñu agsi fii nii tey mais fi ñu jëm nii je pense que war nañ ci toog waxtaan ñëpp ci war a toog waxtaan parce que réew mi kenn intérêt wu amul intérêt que ce pays brûle parce que ñun amuñu feneen. fu ah, Sénégal kay brûle déjà. waaw effectivement on peut éviter le pire li am fii nii tey xam nga mu ngi dem nit ñi di bàyyi xam nga tey dafa am loo xamante si tey day dem ba dégénéré wu tollu niveau boo xam ne yow dootoo ko mën a téye mm-hmm. et là ça pour tout un chacun parce que tey réew mi bu amee problème mi maay njëkk a maay njëkk a sonn yow nga njëkk a sonn. Mm-hmm. xëy na président Macky lekk mu ngi tëju ngi tëju ci palem mu ngi tëju ci palem di lépp di neex lépp di ko fekk si peut-être moom du ko yëg mais na xam ne sénégalais yi ñooy sonn parce que gis nga manifestation bu amee ñi manifesté wul ñoo gën a sonn sonn wul ñoo gën a sonn da ngay romb kër yoo xam ne seen yoon nekkul ci manifestation mais lacrymogène it ci biir kër yi la ñuy dugg mm-hmm. y des gens yoo xam ne ils sont c'est des personnes âgées mm-hmm. des gens asthmatiques yoo xam ne dañoo dem sax am na taskatu xabaar bu bu faatu parce que gaz lacrymogène wala voilà gis nga gis nga perte yooyu c'est-à-dire euh. kenn du ci mucc mm-hmm. li ñu indi man nag dama ne li ñu indi ci situation bii mooy benn injustice boo xam ne dañ ko jël teg ko sur un homme politique di ko ko teg di ko ko teg di ko ko teg ba affaire yi dem ba sës affaire yi dégénéré wu. Mhm. donc ñoom ñooy les responsables man li ma gëm mooy bu ñu bëggoon jàmm rek am Sénégal bi ñu xoolee ne viol amul nañu acquitté Ousmane Sonko. Mhm. Sénégal dellu ci jàmm. bu boobaa tey jii doo gis kenn taal kenn du taal a des millions de réalité nga bëgg ko nga bañ ko 2019 il est arrivé troisième. ñu ñëw en deux mille vingt trois deux mille vingt deux euh, deux mille vingt trois élection locale mu gagné mairie mu jël risque en tant que un homme politique de cette envergure mu jël risque dem Ziguinchor gagné mairie ñaata personne ñoo gagné seen mairie parce que Ousmane Sonko moo ànd ak ñoom. Mm. coalition am gagné des des mairies coalition am am des députés. Mm. mais kooku ba tey yow nga ne déedéet. di gëmloo ñi ñi wër président di ko gëmloo ni kii du dara boo ko jàppee réew mi du tàkk ko jàppee dara du am. ñooñu ñooy sonal le président de la république parce que le président de la république c'est pas un un un omni un omnipotent wala un omniscient boo xam ne il est partout mënu nekk fépp mais war na xam ne que sénégalais yi lii lañ bëgg mais bu la ay nit wëree di la loo ne kii bu ñu ko jàppee on a la on a la force on a il n'y a pas dans ce monde. Mm. il n'y a pas dans ce monde laa wax de un régime qui peut qui peut faire face à un peuple déterminé. gis nañ ko au Mali gis nañ ko dans d'autres pays ñaanuñu yàlla mu agsi suñu réew dans les autres pays bi far bi bi bi jógee. mais dañoo dem ba biir palais dans les autres pays mais loolu ñun ñu yàlla mu agsi Sénégal bëgguñu Sénégal dundu loo xam ne su ko dund tey loolu le président Macky Sall moo ko war a gën a bañ. Ah, mooy nga nangu jëpp mooy objectif nee na palais la ñuy jëm. non Sonko délogé ko Sonko dañuy de délogé ko. Hmm. taxawul rek wax loolu peut-être jeunes yi waxee loolu c'est que leader bi. moom moom taxawul mu ne nañ dem palais délogé ko. Sonko c'est-à-dire que bu loolu amoon mois de mars 2021. Hmm. on avait la possibilité def ko. mais dafa taxaw mu ne bu kenn dem palais Sénégal nañu bàyyi ba élection jëlee ko fi Macky Sall kon xam nga kooku li mu wax dëgg la mais kooku li moom li mu wax mooy il se défend c'est-à-dire que day wane ne ñoom bu ñu ko bëggee faagaagal bu ñu bëggee jaar ci koom loolu mooy am te le président Macky wax na ko fi kenn inquiété wu ko kenn waxu ci dara. interprété wu ko parce que dafa nekk langage politique boo xam ne da nga koy wax. Mhm. mais tey Sonko mënul bëgg a jiite réew mi ba pare bëgg réew mi takk. tey ji réseaux sociaux yi bloqué nañ ko euh, internet bi mooy loolu pratiquement ñu bëri sax liggéeyatuñ surtout suñ genre yeeg ñu yëngatu si wàllum euh, intique euh, pratiquement tout est bloqué. même tamit média yi am na image yoo xam ne ku ko wane dañuy mhm. couper sa signal loolu ban jàngat nga si am parce que gis nañu aussi que yenn média yi wala réseaux mhm. sociaux yi mhm. ñoo gën a yokku taal beeg lakk beeg yàq bi ba tax état daal di koy réduire non man je me dis que cette mesure c'est une mesure irresponsable et antidémocratique àndoo si ànduma ci c'est c'est irresponsable et antidémocratique on est en démocratie tey nit ki man gëw ma ne nit war na nekk Sénégal wax fi loo xam ne du yoon te mënuñ koy identifier on a les moyens de le faire. mais hmm. buñ boo gisee ñu ñu ñu def ko rek c'est parce que bëgguñ information bi jàll. Hmm. parce que tey gis nañ ne presse bi dans majorité en ligne la ñuy travailler. Hmm. tey Sénégal toll nañ foo xamante ne tey presse en ligne bi pour par exemple tey nga gisati nit toog télé di seetaan. c'est tout un problème. problème presse en ligne bi la ñuy topp. di seetaan affaire ci live yi. ak lépp mais nag boo ko tëjee tey ñaata sénégalais nga yàqal liggéey. est-ce que xam nañ ñaata sénégalais ñooy liggéey ci internet yow déjà borom moto yi aaye nga leen ñu daw muy cak-cak. ñooñu c'est des de famille démb dama si daje kenn ñu toog di waxtaan bu ci biir mu lay wax situation di la xamal ne que man lii ma doon def en tant que livreur ci laa yor sama njaboot. Mm. Mm. ci laay daw sama dépense su ma xëyee dem après indi mais ñoo ñëpp nga nga nga nga téye seen liggéey. Mm. mais nga jëlaat aussi beneen secteur. moo xam muy presse bi moo xam ñiy liggéey ñaata personne ci Sénégal. Sénégal mënoo c'est-à-dire pour nga jël cinq personnes yu mën a xëy ba ngoon utiliser wuñu internet. parce que problème boo koy créer faut pas ngay yokk boo bëggee solution faut pas créer d'autres problèmes mais ñoom dañuy ubbi ay front yu bëri jàpp ne loolu askan wi lañ koy def alors que seen bopp lañ koy def man li ma gëm mooy lépp bu jaaree ci yoon Sénégal le Sénégal c'est pas un pays violent nous n'avons pas un peuple violent comme dans les autres pays li nga xam ne mën na fa am ñun loolu ñun mësul am Sénégal. mais am na ñu ne Sénégal dañ ko infiltrer am na ñu jógee ci ay sous région yeeg. c'est des discours de politique c'est des discours des politiques rek yenn yi ñuy dajeeg magasin yi discours des politiques en fait du du du kii ñeneen yeneen nit la en fait. non c'est des discours des politiques xam nga li ma la est-ce que mm. gis nga ñu dire que dans majorité peut-être bu amee yeneen lu ñu yàq est-ce gis nga leneen lu ñu fiy taal à Auchan yi ak Total yi. c'est des symboles attaqué banques mais am na mais dama ne li ëpp banques yi seen yoon nekku ci mais dama ne la mm. symbole yi ñuy gën di attaqué yan symbole Auchan Total mais c'est des symboles voilà effectivement c'est des symboles c'est-à-dire loolu ñoom nag dañu jàpp ne yàq bi rek moo ci nekk mais est-ce que xool même français yi ci boppam ñu ngi toog di étudier bi ñu taalee seen ambassade Burkina Faso ñu ngi dañoo gën di def communiqué un communiqué ministre des affaires étrangères di def communiqué pour wax ne France yoonam nekkul ci coup d'état bi am foofu yoonam nekkul ci Burkina Faso pour démentir. Mm. parce dafa say population sa peuple du ñu am benn xalaat ne que yow ak France di ngeen lëkkaloo pour notre Sénégal loolu lépp moo ko waral mais li am solo ba am solo mooy dama ne bu ñu arrivé fii nii tey. à mhm. ce niveau de violence. Mhm. ñu bëgg ñu wax y a des infiltrés. fii nii c'est des yoo xamante ni si tey ñu ngi dëkk ci banlieue bi ñu ngi dëkk Dakar fépp la ñu dëkk à Ziguinchor partout ñu ne a des infiltrés dañu loolu moo ñu gën a sonal mars 2021 loolu la ñu waxoon fii infiltré amu fi ñun sénégalais yi ñoo fi nekk suñu biir lu fi am c'est entre sénégalais. kon nag ñoom nañ xam ne nii c'est une partie du peuple mais boo waxee tey surtout boo déggee un ministre de la jeunesse bu taxaw di mu naan lii c'est une minorité. c'est une partie du peuple. Euh, loolu la wax ko cest à bu dee deux personnes yow yaa leen njaboote man le wala le président de la république man mënuma a wax ba Macky Sall du sama président moment tey wax nii mënuma ko. mënuma wax ba duma respecter le président Macky Sall en tant en tant que se respecte mënuñ boo xam ne lu la neex def te kenn du la faale. mënuñu am institution boo xamante si tey nit day saaga magistrat yi saaga juge yi saaga sénégalais yi wax lu ko neex nga dem ba France may ko exclusivité Khaliphone Sall taxaw ak moom photo ne battre nga ko moom mu waxal ko ba boppam mënuñu am une institution boo xam ne c'est monsieur ngoom euh, nekkoon suñu su euh, yeewee askan wi. fale mm. dans le Fouta. Mm. sàcc ay dossiers dans la nuit nga dalal ko palais. dalal mais c'est des valeurs yoo xamante si yow une institution ça se respecte mais bu ñu amee suñu institution bu nerm bu bu nermeluwee de par les actes qu'il pose mais peuple bi ci boppam à genoux lay nekk on a besoin d'institutions très fort très responsable qui font la part des choses la distinction entre le parti et la patrie au Sénégal nag on met le parti en avant et la patrie derrière loolu moo ñu indi ci lii yëpp parce que y a des Sénégalais yoo xam ne bokkuñu Pastef bokkuñu benn parti bokkuñu sax ci Macky Sall xam nga lan la ñu toog ñoom dañuy dem liggéeyi ñëw. mais bari na ñoo xam ci Sénégal ñoo xam ne. Hmm. yow politique intéressé jot ñu dem voté ji ñëw la ñuy def. mais bu ñu demee nag yow ba nga bëgg jël ñi nga xam ne minor comme ni ngay wax une minorité un groupe un clan bokk parti ñu ne parti au pouvoir lépp lu ñu bëgg nga am nga leen koy defal mais de l'autre côté nga nga nga bëgg leen ignorer loolu président bu ñëw Sénégal te liggéeyoo ci loolu. Hmm. doo mës a defar Sénégal. Hmm. parce que déjà départ bi ngay faussé. voilà Assane euh, waxtu bi dab nañu carrément ma bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yeeg euh, téléspectateurs yi. ah merci beaucoup Ndeye Comba di la mm. jaajëfal bu baax di la remercier aussi ci invitation bi vraiment. Mm. di leen wax ne Rewmi FM yéen a ngi def liggéey bu am solo donc yow aussi ñu ngi lay suivre bu baax a baax à mm. travers li ngeen liggéey bu rafet bi ngeen di def yépp. Ah, di leen ñaanal liggéey bi gën a yokku yàlla gën a taxawal kër gi ba lépp loo xamante si yéen a koy séentu ci liggéey bi rek yàlla defal leen ko mm-hmm. di remercier aussi téléspectateurs ak auditeurs yi nga xamante si ñu doon déglu bu baax a baax mm-hmm. donc di wax rek ne lépp lu baax bi yàlla la lépp a baax di jaajëfal ñëpp di la remercier bu baax a baax voilà maa ngi lay a bokk ci mouvement Africa First bokk tamit ci parti bi euh, di Pastef ñu doon waxtaane tolluwaayu réew mi di leen remercier yéen auditeurs yu Rewmi FM ak téléspectateurs yi ba samedi prochain incha allah ci beneen émission ak beneen invité di ñaan balaak boobu euh, seen Sénégal delluwaat si dal ak si jàmm parce que Sénégal looloo nekkoon bàkk bi Sénégal dëkku jàmm dëkku teraanga ñu gis ne nag loolu mi ngi bëgg a yàqu en tout cas ñu ngi ñaan euh, dënn yi wàccaat jàmm dellu si waat ñi war a jël seen responsabilité jël seen responsabilité euh, pour le bonheur de tous les Sénégalais ñu jiital li nga xamante rek moom mooy réew mi bañ a jiital intérêt yi kon di ñaan balaa samedi incha allah ñuy toog fii di defaat beneen émission jàmm amaat fii ci Sénégal merci beaucoup jaa ngeen jëf.